acca jaageen jëf mbokk yi ñu ngi taxaw ak le grand champion Cheikh Niang mbokkum ndeyum Boy Niang mel ni nag dafa laal avance fi mu toll nii mbër waaw maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu Mbaye Babacar sama xarit sama doomu ndey sama deret loolu am ñu bokk njaareem bokk suñu lépp bokk fu nu juddoo bokk fu nu yaroo ngay nit ku baax di sama xarit di nuyu waa Leewtoo gépp nag ak mbo axlu làmb yëpp ak mbokku Sénégal yëpp maa ngi siyaar ñëpp waaw laal naa avance nag am naa ko yu bëri yaakaaroon na non man daaw ñaata combat laa bëri ci saison bi trois combat laa bëri saison bi kon nan laay bàyyi. trois combat trois victoire. trois victoire. Lion Raay laa bëri. bëreeg. Euh, Lion Raay bi bëri fi barki dem waaw bi bëri barki dem. waaw bëreeg George euh, George Bush. waaw bëreeg Sangu daa mel ni waaw dama ko dóor mu daanu bëreeg Sangu Ndiaye yooyu yëpp ci lenn ngeen ma laa leen tegle kon kay nu may bàyyee yow tamit. waaw kar maa ngi ci de. moo tax nga jël caatu kay. ma jël caatu kay de ndax moo ma fekk ba ci kaw tribune bi ma toog. mu ne ma damaa bëgg a bëri yow jël ma ma daan ma ne ko booy de nag lii humiliation la ndax da bàyyi lii moom mooy li naan <laughs> lii lan naan violation de domicile ndax violation de domicile weesuwut nga fekk ma ma toog ak sama soxna ci kaw turbine bi ak soxnaam sax nag borom du ma dem fii laay toog ma toog ak moom jàpp sama aise booy ba daan fekk ma ca kaw ne ma yow mii laa bëgg daan jugal maa la mën waaw ma ne ko ah lii de mooy nam ca yebu ca koo ci ma ci bu wax ma jël man mi nga xam ne maay siti dawuma kenn maay feebar boobu ñu naan siti man ku ma fi bawul baw moo leen ah, loolu moo ñu boole menacé menacé ma déggoo ma ne la lii weesu jàppewu ma ne arène la ma fekk de xam nga lu ma jàpp kii li ma jàpp mooy sama biir kër la ma fekk ak sama soxna menacé ma waaye dinaa xam nag li tax mu def ko ah ñàkkul lu mu toogaale non moo tax dinaa xam lu tax mu def ko loolu ñu naan la nit bu la fekkee nga toog mu ne la xaw ma kaa ñu sànnante xeer daa fekk mu jóg ci xeer waaye baax na wax ko fekk ne dina fekk nag fii paanu xeera fi ne moom moom bu sànnee wen na mu jeex li ci def lépp naa ko xaaj baax na ah, en tout cas euh, expérience la ak jeunesse yaa ko jiitu waaw maa ko si jiitu mu nekk xale bu nekk ci yoon nag waaw xale yi ko du yomb xale yi nekkoon ci yoon xaaj bépp maa leen fereen source buuse ko gën a dox fuuf ëpp ko doole waaw te fii la jaar ak ñeneen lion raay ko gën a diis nee doomu ndeyam la nag ay mbokk la waaw est-ce que looloo tax mu bëgg waaw mais baax na kon bisimilah nañ ci dem ba bis ba ba bis ba incha allahu rabbi. mu ne ma ne ma dégg seen face à face mu ne dóor rek nga am ca moom. waaw dóor nag baaxut ndax dóor ba daa mën nu leen de. Hmm. dóor rek ah na encaissé rek xool ba xam. Hmm. du dóor rek laa am. Hmm. ah baax na bisimilah defe naa ne ñi fiy dóori ñëpp daa mooy dañ leen fee ba de. waaw baax na. mais mais mais mais xale bi ndaanaan la de. waaw man de man may ndaanaan ni yow ngay ndaanaan ni ndaanaan yi moom boo yemoon ci ndaanaan rek nga ne ma ndaanaan ndaanaan koo xam ne jëflante naag Sénégal gépp ndaanaan ni ndaanaan yaa ngi nag ah yow tamit booy Babacar yow xam nga ma yow tamit teewal nga ma yow da langal naa la fu ne yow booy Babacar xam nga man du ma lax sama bopp ndax koo teewee di xoetaan léppam waa déggoo ma xanaa xale yi moom maa ba ma xale yi maa bon ci ñoom xeex bi day waaw baax na bisimilah ban egg ca loola ñi ko fi waxoon xeexu xeexuñu bëriwuñu wallahi ñi ko fi waxoon ba justement ne yi mag laag nangam ak nangam ba nu ñëwee xeexu xeexuñu bëriwuñu waaw baax na ab paa lan ma def li waaw mais baax na bisimilah <laughs> paa yooyu de lan ma yóbbu paa lan ma def man su ma doon paa bëj yow da bàyyi la ko moo tax gars yi def ah, li ko mooy la dan maa gis ma ras mbaa ñu gis ma ma màggat wala ñu gis si man. bee jàpp ras ak yooyu mais état bi naa ëpp. man moom nii la ma sun borom bindee. yow man xam man nga maa xam man gudd ma réyu ma heure bu ma summee koo nga ne acam daa tuuti waaye bis bu ñu demee ci biir géew bi nga naw ma loolu laa seq ak ñëpp ndax rëy moom gudd rëy moom yàllaa koy bind nit man gudd ma rëyu ma fit wi rëy na waaw waaye sama woowaay bii ma am de sama yax yii ma yor ci laay jëflanteeg ñoom ñoom xam nan loolu sax ah ñoom xam nan loolu man Mbaye Babacar langal nga ma bu rek poids lourd bu ne nag yow tamit ay waay Mbaye Babacar nag super étoile super étoile diggante ak super étoile ah ak Jordan. waaw tanoor ah, digganteeg Tanor Tanor bu Lamsaar. Ah, sama digganteeg Tyson gin gi new ah si diggante si digganteeg Jili. sama digganteeg Jili Jili Mbay bu Faas. waaye yow tamit nag man ah waaye. digganteeg Modou Lo man déggoo li ma sama digganteeg Papa Sow. kon nag man dara safatuma man loolu mooy. li naan ku yéeg ñay ba wàcc. loo yéegati mu ndaw. te déglu ma xanaa déggoo ñu naan man gaana ko warasu laa. gaana ko warasu dara safatuma. gaana ko warasu mooy. mooy ku feebar dootul dal xam nga gaana ko warasu faale wut siti boo demee Gaana ba mujj worosu ay cité yooyu yëpp dara dootu lañ sax feebar bu ñëw baax na ay wokkatoo ki tam <laughs> yooyu yëpp. mais mais dama bëgg ñu dellu gannaaw tuuti sa combat ak Jili Mbay. fan la woon Louga. Louga la woon drapeau. Jili Mbay bu Faas premier caisseur. waaw assemblée. waaw moom laa fa bëril ndeysaan laa mujj rëy a rëy Jili Mbay. maa ngi koy nuyu au passage. di leen ziar ay ndaanaan kulli fat leen comme li ma wax rek Mbaye Babacar ndaanaan yi ndaanaan yi lekku ndaanaan yi lekku nu ci làmb ji dañuy mos rek wallaay mais nag mu def da nga koy nangu te te gëm ko waaye ndaanaan yi wallaay ndaanaan mais nag sant yàlla ko waaw soo ñëwaa soo ñu ñëwalaatee ci li nga bëree wutoon jili waaw jili bëri keroog dégg naa jili bëri jili dama koo kan moo ma dóor jilee la dóor waaye may nangu dumaa duma ba mu safaa gay di raam ci saaku yi barki Nabil Moustapha naan ko baal xeex bi te soogu ko boo ko soogul mag naa am lu ñu naqar bu Safa Gueye numéro un ci boppam mu mag a ko indi man képp cundum ma di ko duma ba muy raam ci saaku yi laax vraiment mujj ne arbitre yi kii bu génnut làmb ji dootuma bëri mu topp ci sama nopp yi rek père Tafa xam ne li ma ko mi ngi seetaante lii day def naan ko baal xeex bi moom la ko doon wax naan ko baal xeex bi xeex bi baaxul te gars am na fu ma jaar ak ñoom de. yaa ngi Modou Lo fu ngeen bëre. Modou Lo Taïba Ndiaye moo tax xam nga ne man maay seex fekki wallaahi seex fekkee gi ni biir Taïba Ndiaye laa ko fekki ñëpp ba fi avance mu dóor les deux mu daanu. dàq laay bii daan ko ma dem. maa dem de. fekk ko dem ak moom defanteeg moom ba mu mujj song ma ciy tànk. mu ganale la woo la ko xeex bu. teeru la teral la man kay xaaruma fa ay teralanteeg a teeru. Thiès laa jógee ut sama ak taxi ñëw taxaw. Ah. wallaahi mooy tamit. gars yi def la daal ay coups yu métti Modou moo jël ah laay moo doo jël ba song si moom xam na li ma ko wax moo doo song samay tànk de barki alxuraan moo mujjus ne xaaral kii ma songi ko jeexal bëri man xam nga ne ku woo xeex ña ngi cëb xeex woo nga naar ci góoxum soow mbàccum gerte dong lay doon barki alxuraan. pour day mel ni péril. billaay wallaay taalaay loolu xam nga ci dara bay ba bay xam nga yow koo xam ba pare di ko laaj moo nekk man man mosumaa gis lu mel nii xam mais su ma la xamee su ma la xamee mais damaa bëgg damaa seetaan gën laa waa xanaa loolu waaye yow xam nga ne Cheikh Niang mii koo taxaw naan ko Cheikh Niang laa am ci xeex ak kaay nangam ak nangam yow war ngaa toog ne am nga ah, wallaay dëgg la wallaay bay Babacar dëgg la wallaay bay Babacar ah borom jaala neex a jàng moo yow déggoo li ba la wax damaa amoon sama benn grand boo xam ne xëy na bu ma déggee sax mën naa am lu ko naqari waaye dafa ñëw ci Bombardier ñaari bañu kaw yeeg bañu suuf yi yëpp dëñ attaque ya ak suuf bi Bombardier ne ko damaa bëgg nga lokk cere jow ne fuu ñuuñ lu ci waddut ma may la ñaari ma may la cinq cent bi bëggul nga fuu ñuuñ boo koy wax amul mais sëriñ jëpp bëggul jàmm ji tuuru mu ne ko loolu ah looloo tax ma ne la moo tax ma teg ko damaa pare dama ne la soo logee ci cere ji wow ji loxo ne ñaari bañu kaw yi dañoo dañ ñaari bañu suuf dañ lii dañ mu ne ko léegi da ngay log cere ji wow ne fuujuñ am nga fuuj <laughs> bañee tey bañee war a téye cere ji te bañu <laughs> moo tax mu ne ko da ngaa bëgg cere ji tuur mu ne ko loolu nag da xam ma tegal la waaye daal euh, bay Babacar li ma lay xamoon mooy ku ci jël fees nag am nga combat bun la ko waxee bun la ko waxul barki Seydina Mohamed làmb nag moo tëra di ku ci nekk lii sa wërsëg ngay am waaye tépp tépp a gën yu réet ndax xëy na am na noo xam ne bu ñu demee woon du ma ko nettali waaye sant yàlla rek lu ñëw rek ñu xam ne la ko suñu waaw mais ñu ngi ci daal. sa doomu nday Boy Niang jël na jël jël na combat royal. waaw di ko ñaanal yàlla may ko ci. mook Modou. di ko ñaanal suñu borom jox ko ci. yow yaay porte la. déggoo li ma la wax maay magam. ku ku kon jege maa maa taxaw ci sama ci sa kanam. waaw yaa koy jëlal yaa koy jëlal défense. nit ak rakkam yoo tamit mais mag dafay vidéo sax nga def TikTok mag mooy défendre rek mais mag mooy défendre rek mag moo war a woon ne rakkam maay sama booy ñaa ku ko laal ma laal la loolu moom waxatuñu ko te lu ko wokk xuri ma ndax deret ji benn la ñëw ma fekkub jàmbur ma di ko défendre de koo xam ne boobu ñun nga ñooy suñu maam ba pare Cheikh Yirim du mbaan sekk di suñu maam alaaji Cheikh Yirim na Cheikh Saad bu moo ne alaaji Cheikh Yirim du mbaan lu ñuul lii ci sa lu lii ci sama bët bi per bii yaay ma yaay moom kon xam nga ne loolu doy na waat Cheikh na seex Saad bu yiri moo am lu xaw mi na samaay xut bu baari saa yi bu saxaan ah waaye kon ñun xam nga ne ñun dara dawuñu dara te ñun danoo bokk ci ceddo ji bokk ci ci wàll yi ndax ngoñee suñu maam it wax wax nga ko léegi ngoñee suñu maam it demba daara daaw ngoj ma sàmba démbali ngoñ takkatulu téere laal tum ndomba kollu baat ngeen dem ngoñ du woy du woyant ko mosoyaan mu dam nangu sama ma ko fi indi dam ñun dañoo toog rek ña su ñawee. kon nu mu defoon nag maamu alburi mi doom bi nga xam ne bu ko kenn mosaa tooñ. alburi dañ naan dajale ba fu waaye man sama maam xam nu mu daan def. moom da leen doon bàyyi ba ñëpp woyaani ay maami alburi ak ñoom ñëpp ku ci woyaani mu dab xam nga kee xaar ban tooñ ko. kii nag day dem tooñ. xam nga kuy xaar koo xam ne day ñëw fekk la nga woyaani ba ñëw mën a ko fii. nga jox ko mu def ci poosam. te xam nga nag léeg-léeg lu mu tey boole mm. kaay woy nangu ko ba pare toog nga di ko way muy xam nga ne ngoñu ci génn mooy suñu maam bi kàddu gu mujj kàddu gu mujj mooy di tàggu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di la ñaanal jàmm bay Babacar kañ am na date wala amagul date le 26 mai daal laa déggagum nga làmb moom yaa ma gën a xam dañ naan bi date la nga ne ñu la bëreel moom nan jàppagum ci le 26 mai incha allah rabbi di ci ñaan yàlla yàlla defal ci ndam di woo ka nga xam ne kenn la ci man mbay Babacar muy Habib Niang monsieur Habib Niang nga xam ne nag président Macky Sall war nañoo geestu ndax bu nu geesoo na ko jaarale ci Habib Niang ndax Habib Niang lekkul dara bàyyi waa Thiès barki Seydina Mohamed lu mu am dugal ko Thiès lu mu am bokk waa Thiès kon ku mel noonu bu nekkee ci ab dëkk doon xale di demee ci ay moyens boppam di dimbale waa Thiès di def social di def lépp carnet de santé yi moo ci gën Habib Niang social bi moo ci gën Habib Niang barki Seydina Mohamed inondation bu amee Thiès Habib Niang la ñuy woo moo taxaw barki alxuraan kon ku mel noonu dafa jar a jàppale kon monsieur le président danoo bëgg mu jël ndombal tànk lu rëy takkal ko Habib Niang mu gëstu moom xam na Habib Niang keroog ba mu dugg see Thiès gis na keroog ba mu dugg see Thiès gis na li Habib Niang mobilisé gis na li taxaw ci kanamu Habib Niang kon Habib Niang laa am man moom laay woo combat booy jaxaw bi 16 bolog la jënd 16 16 bolog la ko jëndal téye ko ñëw jënd ko kon nag man sama combat bii séentu naa ci lu ëpp 30 bolog mbaa 20 bolog seen mag ñoom maay seen mag ñoom waa Thiès waaw cent pour cent Thiès bépp maa ngi leen di woo ñoom booy jaxaaw Modou Anta bàyyiwuma kenn ñoom Saafi Dieng sama rakk ak bàyyiwuma kenn ku lim juum ñoom fàllu mbaay ñoom fàllu maanaa ay ñoom building boo yëpp bàyyiwuma kenn ak ak sama dekki làmb bi ma ubbi Thiès dekki làmb bu Thiès ñëpp maa ngi leen di woo waaw di woo président bi teg ko ci loxo président bi buy ndongo mu woowal ma ñëpp mais Mbaye Babacar daal li ma lay xamal mooy bis bi incha allahu rabi dina dina ala dina ala daw waaw dina am bëre dina am xeex di woo Babacar Pascal Dione waaw Babacar Pascal John moom it doon daanam di ko woo di woo doomam xamante nan dama naan ko amet xuru bataa rek laa koy wax moom moo ko waxee loolu xam ne li ma koy wax di woo soxnaam madame John ñu koy wax dolli ku wàññi ku ku ku yokku ku ku ku ku ku yokkul yaa wàññi te moom daa dolli moo tax ñu tudde ko dolli di kontaan ci ñoom di woo ñëpp nag mbay Babacar di ziar ñëpp jaajëf sama waay jaajëf sama waay jaajëf rendez-vous allahu rabbi jaajëf